Первое. ci ñi jaar ci am ñu mag waa kër loolu la ko waxee ñu lay waxee bokk bokk bokk ñu ñu wax ak Saya boleh enggak moo tax mu wax fii mais na xam li ngeen xam Touba doole suñu ko dara nañu ko xañ dara li ñu indi ñun lii lay jël. ndax loolu nga wax ay alquran ma dafa wax ni daf leen wax ni. te lii koy damaa bëgg ñu ngi ko gën a dëgëral ci xam ne Touba gii. ñu ngi yëngatu de. barab bi yàlla la bokk ñu ngi jëloo ko dara. nga fële la man man naa koy jëriñoo rek xoolal ñu ne yàlla ci sama waaye na ngeen xam ne liñ fi wut si ñun lay def. ma ne ko ba ma ma koy jënd ma ne ko daf lay daf lay ma ne ko ba mën naa si ko màcc laay. la ca topp mooy boo fekkoon barab boo xam ne ñu sellal la la nga fay def. du du du wàññi dara jàpp naa nga fay def yow ngay doon baax dara te dafa defoon lu ñuy lu ñuy waaye ñu def ma ne ko kon lii nga wax. kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Cheikh Mamadou Moustapha ñu ngi ànd si àttu ak délégation boo xamante ne ñu ngi bàyyi ko Burkina Faso muy délégation boo xam ne ñaari xaaj lañu am nañu ñoo xam ne ci woto la ñu dugg jaar ci yoonu suuf feeñal seen cofeel cofeel di gan ñoo xam ne ay jari seen tubaab lañu ñoo la nekk ñu góor ñi ñu xam ne seen kilifa yi am borom programme bi dañu wàcce tënk ak yow liggéey waaye ñoom ñëpp waaw jigéen ñi dañu jóg ba noppi jigéen ñi dañu jóg ba sëñ bi gis leen les femmes bu koy bu levee daara yi Hizbut Tarqiyyah yi nekk bitim réew ñoom dañoo tànn seen jiw yi nga xam ne ñii ñëpp di gëm ne kii seen Côte d'Ivoire la kii Amérique la kii ak Côte d'Ivoire ba ci Maroc ba ci bi gis leen nag mooy li ñuy wax suñu mooy moom la xëyee moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy rayaatoo amul lu liggéey si droit bi dañ jël suuf bu loo xam ne il a mën loo ku liggéey ci fàttewoo ci sax ñu daal di wax naa ne moom ak kaay la mën naa suñu ko mënul itam ñu yéene loolu te di ko doxee mooy suñu xëy suñu gont suñu yëngatu suñu dal lépp la yem ci liggéey sëñ Tuubaa gis nañ ne bi biñ ci nekkee gis nañ ne sëñ Tuubaa mi ngi ñuy wuutu ci lépp mi ngi ñuy fàggul lépp mi ngi dimbali ci lépp mi ngi sukkandiku ci lépp mi ngi defal ba di ñu defal loo xamante ne ñu ne ci seen bopp di ko wut mënuñu ko am ci sant ndax loo xamante ne xam nañ ne am nañ ci ndimbal loo xam ne sëriñ ci si laaj bi loolu kon ñu jox ko yéen ak yi ci mi jëwriñ wax ñi nekk biir réew mi ak bitim réew si ñu nee na bu laal suuf kon bu ñu àttik ñun àttik nattoon nañ ñun bu ñu àttik kon nañ ko ci sof te bañ a joxoo kon defe naa ñu ñëw ci gan yi kon kii nga xam ne mooy Amédée Ouédraogo boobu waaw di jàmbaar bu baax boo xam ne sëñ Atou moo xamante woon moom ci Amédée mu mel ni keroog sëñ bi wax da koo xëy ci jëm sëñ Atou loolu nag mu topp ko ànd koog si yaatu si yaatu fayal leen liggéey ak ñeneen ñu ñëw fi waaye moom bi xasee ñëw rek dafa mel ni dañ daan dégg ci yoonu bi daa gis loo xam ne nekk da xam na ne bokkul ci la nee na lu ne waxoon nañ ko ko ci yoon bi waaye bu mu ñëwee xam na ne nekk na diggante dëgg ak safaan dëgg des koy gis safaan bi moom mënees na ko dégg bi mu ñëwee nag jàppante nag si yaatu waaw jàppante nag si yaatu ma xam ne waaw policier di jàngal ci suñu biir loolu ay muy loo xamante ne loolu gëm na ko ñëwoon na ceeb bi wax na leen am na doomu jigéen ñoo xam ne sax da koy yóbbu ca daara ñu waxaat waxoon na la mi ngi ci mi ngi ci mi ngi topp mi ngi topp loolu comme jàmbaar kii nga xam ne mooy docteur